waaw kon naa tey ñu doon layal Alassane Diallo ñu ngi rafetlu nag ci lu tribunal dogal tribunal dafa jàpp que ne euh, corruption passive bu ñu ko toppee moo ko def mais mais tribunal dafa ko condamné peine deux mois assorti de sursis donc euh, cela veut dire que euh, non seulement tey dina génn kaso mais également euh, ci yoon normalement dina mën a intégrer corps police bi nga xamante ni ci moom la bokk. mais aussi euh, war ngeen xam ne que ne Sénégal lañ nekk te moom soutien de famille la am na soxna am na ñeenti euh, xale ñoo xamante ni mooy seen baay donc moom moo war a nourrir xale yooyu ak soxnam si. donc vraiment ñu ngi rafet lu baax décision tribunal bi décision bu ànd ak sagesse la donc vraiment c'est une décision satisfactoire et entièrement satisfactoire dans l'ensemble. waaw xale jigéen yi kenn kii lañ doon àtte mu tudd Soxna Ndiaye amoon na moom aussi ay tribunal daf ko condamné peine un mois assorti de sursis tribunal dafa jàpp que ne corruption active moom moo ko def mais dañ ko relax si chefu de données à caractère personnel donc li ñu jàpp rek mooy corruption active te ci loolu am na un mois assorti de sursis moom sax euh, bi mu ñëw tribunal dafa ñëwoon libre dafa amoon liberté provisoire mais policier bi Assane Diallo dañ ko tëjoon ci kaso la nekkoon biñ koy àtte aussi ci box bi la nekkoon mu génn jàkkaarloog avocat ak juge mais li ci am solo rek mooy tey euh, bàyyi nañ ko dina mën a ñibbi këram mais également aussi dina mën a euh, duggaat normalement ci yoon ci corps policier bi nga xamante ni ci la bokk.